Ami merci. au fait infidèle euh, c'est dommage que gars yi léeg-léeg dañuy dañuy seetaan mbir te duñu comprendre man je suis acteur comme tu viens de dire acteur laa ci infidèle te acteur bi amaana dina jouer sax taru xam film bi naka lay demee tu vois yow dañ lay jox texte rek ne la defee ko nii. Ah, noonu la ñuy liggéey waxuñu ci suñu xelu xelu bopp waxuñu ci suñu teeyu bakken waxuñu ci ci loo xamante ni suñu suñu idée la quoi réalisateur bi moo bind filmam woote casting acteurs yi ñëw présent ñu essayer leen ñu réussir rôle yi ñu leen bëgg def ñu jox leen ñu jouer rôle yi tu vois donc daf ci am loo xam ne nag réalisateur bi moo ko gën a mën a mën a mën a mën a mën a mën a euh, leeral mais ma wax rek Euh, citoyen en tant que sénégalais en tant que nit bu am xel di di di xalaat ak di di di di di saytu ni ma gisee infidèle dafa di film boo xamante ni euh, gars yi dañ ne dafa am ay gros mots temps yi wax naa ci ne dañu war a tëggaat suñu suñu kàllaama nga xam ne Sénégal dafa doon dëkk boo xamante ni dañu dañu mën a lay sénégalais dafa mën a lay lu ne am na lu mu ko layale sénégalais boo waxee ku nekk day jël wax ji étudier ko nu mu ko neexee mais tubaab yi nga xam ne ñoom comprendre nañ àdduna di ko doxal ba am ci luñ ci am larus bii nga xamante ni euh, euh, kuy jàngkat xam nga ko di dictionnaire dañuy dem ba yàgg ñu jël ay ay wax ak i baat tëggaat ko wala ñu créer ay ay ay baat yu bees léeg-léeg ma gis ci ci commentaire yi am am na ku naan yow yaa ñàkk teggin suñu kàllaame bi nga naan nañ ko nañ ko tëggaat bien sûr Sénégal dañu tardé dëkk bu tardé lañu te riche en culture am ay boroomi xam-xam waaye c'est domage que bëgguñu bëgguñu euh, jëriñoo suñu xel bëgguñu nangul nit lu ko yàlla may ku nekk da ngay toog ci sa ruq rek di xalaate ni mu la neexee. ku ne toog ci sa bu nit defee dara nga sikkal ko wala nga aayal ko alors que dans la vie àdduna ni muy doxee dañuy dem ba yàgg ñu ñu ñu ñu ñu war a toog mais mais xalaat am na ay baat yoo xam ne am na ci France amul ci olof waaw làkk boobu war ñu ko tëggaat bëri na baat yu am ci France amul ci olof bëri na baat yi am ci olof amul ci français waaw làkk làkk làkk boobu war ko tëggaat bu ñu tëggaatoon làkk bi ba am. kàddu wala baat boo xamante ni mun nañ ko tuddee cër yi nga xam ne moom la yàlla def ci ñun ba nga xam ne buñ ko buñ ko buñ ko waxee donte ci mbooloo lañ ko wax sax du du gaañ kenn mais bu boobaa euh, infidèle du doon problème mais alors euh, ñàkk ko wutal baat ak ñàkk ko woddu ci ni mu gën a rafete ba ba nit bu ko déggee du ko soge moo tax may wax mais loolu boo amoon tey infidèle du choqué kenn bu fekkoon ne mots yi ñuy utiliser te pourtant euh, Ibou Guèye ku wodd ku wodd affaire yi la ñu dafa wax xale bi dafay wax jëkkëram ñaata fan a ngi laaloo ma lan mooy laal yow ci olof laal mooy toucher quelque chose toucher la personne wala nga toucher un objet mais léegi laal kon moom wa kon wodd na ndax moom waxul waxul moo bi direct waxul moo bi direct di te nit ku toog ak jëkkëram <laughs> sa jëkkër sa jëkkër la am nga droit laaj ko li nga li nga moom ci moom li nga xamante ni ça ça t'appartient tu vois am na benn baat mu ne su ma ko ubbilee mu dóor woddaat na ndax kàllaama ba dëgg du ubbil ak dóor. voilà donc ñun ñoo war a fexe ba créé waat ay baat wala créé waat ay mots tëggaat suñu olof dañ ko war a tëgg tu vois voilà léegi nag derrière kàddu yooyu nga xamante ni Ibou Guèye moo xam moom lan la ci jublu mais am na message mais message boobu nit ñi dañu dem jëriñoo message bi parce que nit ku ne euh, tey boo duggee classe di jël cours. wala nga ñëw di di di proposer wala ngay exposer di jaay ku nekk mooy xool idéem ak façon bi nga xam ne moom la bëgg jaayee li muy jaay tey jii ami bu ñu duggoon ci bërëb nga yor sa marchandise ma yor sa marchandise ku nekk day utiliser euh, euh, méthode méthode bi nga xamante ni moom la yaakaar ne mun na tax mu jaay li muy jaay Ibou Guèye ci loolu la sukkandiku ngir utiliser ay baat yoo xamante ni dina attentionné nit ñi dañu nekk ci moment de con moment de concurrence bu bu am maana gars yi ay jàmbaar lañu ñu ngi bind série yi du jeex réalisateur yi ñu ngi def lu ñu mën donc méthode bi ngay def pour yow nit ñi déglu la ku nekk yaa xam sa Ibou Guèye peut-être méthode boobu la jëloon moom pour être attentionné et ci doon wut yàlla may na ko ci mais qu'est-ce qui est derrière derrière li ci ne mais réalité la kër yi ay góor a nga fa mel ni Abdou feebar nekk ak seen jabar du ko ko nëbb seen jabar ñàkkul xamul ne dañoo feebar fu fu suuf seddee rek mu mu mu mu daal mu daal di bëgg ñu ñu ñu sëy ci farata ak sunna te fekk Abdou ndeysaan mënalul boppam dara feebar dab na ko bu mënul satisfaire faire jabaram mais amul honnêteté wax ko ko waaw lii bu nekkee ci kër yi te kenn waxu ko. Ibou Guèye na dinaa ko wax ndax nit ñi am courage wax ak seen jabar yi ñu ne lu tax mu koy wax. léegi Sénégal dañuy gis lu ne fànn ñu bàyyi ko muy dem nit jug di ko dénoncé ñu ne doo ko fi waxee <laughs> amul li jaaduwul nag wax fa dëgg yàlla. gis nañu tam terme yi acteurs di utiliser nit ñi di ko critiquer yow euh, est-ce que d'accord nga si terme yi nga xamante ni euh, acteurs yi ñoo koy utiliser entre ak ni nga amee diine ku ne xam na loolu. waa diine. ak loolu jotewuñ dara xam nga Sénégal dañuy jaawatle diine ak aada boo demee di jàng Laxdari yu alxuraan dafay préciser ci awra yi di ko wax kon awra yi est-ce xam nga dara nit moo moo ëpp valeur nit moo ëpp valeur li ñuy dégg parce que yooyu ñuy tudd lu nekk ci ñun la te nag lu lu lu lu lu exiger rek lu loo xam ne dafa exister mais faa faa mu am tur waaw léegi nit ki bu waxee benn baat ñu gis ne ni mu ko waxee dafa ñaaw sénéral ay ay ay ay ay ay nit lañu ay sénégalais lañu ay ñu am valeur lañu ay jullit lañu comme bu fekkee même chrétiens yi sax mais ay nit yu respecté lañu nit ñu am personnalité lañu ñu am dignité ñu am yar am teggin yiiw kenn gisu fi chrétien fii mu def naka sudul noonu bu fekkoon ne. dëgg dëgg dëgg ñenn ci ñi nga xam ne dañu foog ne yëf yi dafa dafa jàdd noonu ñu ko xalaatee noonu la amee mais kon du ñu nangu mu fi joué mais léegi général fan fan lay fan lay taxaw pour pour pour pour pour jële fi euh, infidèle te mu infidèle du fóonante wuñu infidèle amul fóonante te chaque jour bu 18 heures du mën a 18 heures sax 24 heures sur 24 chaîne ngi fi ci ci ci ci télé Sénégal bii. nga fay gis fóonante di fa gis lu raw fóonante te kenn waxu ko waa léegi loolu du daw kër goo dugg nit ñi di ko seetaan ñu joué ñun dafa ñu lu dul tudd ay baat ñu ne duñ ko fi joué <laughs> mais loolu loolu fan la tege.